internet yu Galsen Célébrité nuyu nañ leen te di leen wax daleen ak jàmm ci seen xabaar la koy dooree di taskatu xabaar bile di Thioro Mahom Mandela dal nay amaab liberté provisoire ba noppi nag ñu daal di koy mettre sous contrôle judiciaire ñu sukkandikoo ba tey ci avocat di maître Moussa Sall mu ngi naan nag Thioro ñaari weer yu jot wax na daal di dem signer foofu rek ci tribunal bu Ndakaaru ba noppi nag leneen li nga xamante ne tegal nañ ko ko rek comme condition dina daal Thioro mi amul benn droit daal di waxtaan ak ñu daal di jàppandoo woon ci li nga xamante ni moo ñeel a groupe rek topp ka ci loolu sax li nga xamante ni tam tegat nañ ko ci dina daal administratrice yi nga xamante ni teg nañ leen loxo ci groupe Facebook bi li di neen tuuti kaay ma di la ak topp ka laf ca ñoom ñëpp nag kenn amul droit daal di ci diggante ak nga xamante ne daal moo di Coro Maxu Mandela lañ leen di toppee di rek association de malfaiteurs collecte illicite de données à caractère personnel diffusion d'images et d'écrits contraires aux bonnes mœurs yee la ñuy toppee ñi nga xamante ni rek ñoo doon euh, rek def li nga xamante ni moo di groupe Topouka bokk na ci taskatu xabaar bi lii di Thioro Maxu Mandela nekk foofu li ci groupe Walfadjri lu boobu boobule xabaar danañ ko daal di toppandi fii ci biir Galsen Celebrity ngir ni waat ci yeneen leeral